waaye bari ñi tamit moom yéegul woon de 48 yoo xam ni OMG moo ko doon def nañu dem ànd ak sukay ba tey wan leen la xew bari ñi bari ñi nag maa ngi fay dugg waaye bu ma génnee dama fa duggaat tey xanaa beneen yoon rek nan dem xooli sukay lam ñu wan ka bari OMG ma lu baax lii lu waral tey sa teewaay ci bés ah Oumy xarit la sama doom day la ba ñu nekkee xale ba léegi ñooy ànd dama kon classe aussi il m'a dama ñëw genre pour représenter moomoo bi ku baax la et def 48 heures andi ko ñi donc ñu déplacé wu ñi jóge Tëngéej ñi jóge Dakar juste pour ñëw wuy si ko parce que dafa mel ni ku dellu à la case de départ ñëw jël li muy def yëpp andi ko moom fi mu sosoo fi mu jóge wan leen ne carrément moom xeebu leen fii la jóge fii la soso donc dafay rafet ñu ñëw teew. mooy wax Aba si biir émission Dakar ne dort plus ak Aba no stress. Aba moom macha allah ñoo koy suuf no stress ñun daal Dakar ne dort pas plus si kaw ci kanam. ngi lay fay ma chérie. Habib tey lu waral tey sa teewaay si 48 heures ONG. waaw dañoo ñëw en tant que mbokk ñëw en tant que ay dëkkandoo ndax OMG dafa nekk suñu waykat nekk suñu star di représenté Bargny au niveau national et international nekk fierté du coup lépp lu mu woote ci biir Bargny du ñu mën lu dul bàyyi lépp lu ñu jàpp ñëw wuy si ko dama koy faral ji wax naan ko foo woote te defoo ko Bargny yàq ko ndax boo fi wootee daje xandeer la bu demee géej galewul daa mën naa ne. wax dëgg yàlla ndax fii nga cosaanoo te fii nga fekk baax nga fàttewul bari ñi benn yoon ñu lool si initiative bi. may nga jàkkaar lool en direct sur la TFM. kooku sa kër kooku c'est ñu ngi xamante ca ba may door ndeysaan mu metti dañ daan waxtaan daf ma daan conseillé Aba no stress ma lay big yaa ngi may bëgg a rey nag rey naa ba amatuma réewukaay wàññil dose bi. xam nga ni dafa am lu xew ku ne xam na ni damaa génne fecc bu bees fecc bi nag mu ngi tudd Mburuj Mbaraj commencé aba Mburuj Mbaraj gi damaa bëgg nga invité ma ma ñëw plateau ba wan la loolu barki Serigne ngi koy fecce fecc bu bees nag commencé lëmbe dëkk bi tey nag sunu jigéen moo xewle woon OMG di artiste dëkk fii Bargny di tiitaroo Bargny jël taane benn gu mais kenn doyu ma ci kudul Kora mi nga xam ne lu mu baaxul aba fi wàcc na ba zéro barke Serigne Touba di kontaan ci yéen di kontaan nag ci waa TFM di leen wax ne ni yéen yéen daal yéen a ko yor dëgg neexul di leen wax ne nag sama feccu bees bi mburuj mbaraj gi mu ngi ñëw na gaa xaar dëgg neexul yoo oo oo eh, xale yaa ngi nii kaa xale waaw ba tey pareeguma ak yow ndaxte dama fi gis hôtesse ya nga xamante ne tubarkal waaye yow man bu ma doon daal ñoo may sol waaye yéen lii waaye yéen lu mu doon si zone yow bul daw ñëwal fii nag sama xarit ñuy naa leen ah ñooy lay delloo ñoo ngi lay fay. tey ngeen def seen hôtesse yu am solo yi. waa xam nga ne moom ñooy waa OLT Dakar oh, ñun ñooy waa Bargny tamit di ay doomi UNICEF OMG plutôt tey jii bu defee 48 heures Bargny. Euh, loolu dañ si yëg suñu bopp bu baax daal dañ si gis suñu bopp bu baax. waaw ba nee naa la man su kaa soo ma yónnee nag mbégteeg bànneex laa la siy amal. tax na tey fii laa ñëwaloon fi nga xamante mooy Bargny di dëkku lébu boo ne Bargny nee nga tëngëj nee nga fu ne ndaxte fii ay lébu lañu ki woote woon tey nag mooy ONG nekk une grande rappeuse doon def 48 heures de waa Bargny daal kontaan nañ ba tax na mbégteeg bànneex daal lañ am ñëwal ko fii teewal ko fii si bés bi moom tamit kontaan na yéen a dégg ay mots de satisfaction yi nga xamante moom la wax ba tax na abaa man tam si aja foofu mooy bari Bargny mooy dëkk ñoom Momo dëkk OMG dëkk Pamadié dëkk suñu papa euh, kooku nga xam ni euh, euh, mooy papa Kora Fall ah dëkk Tëngéej waaye moo dëkk bari Bargny eh, eh, kii kala Kora mu ndaw nam naa sa turando papa Kora Fall nam naa papa Kora Fall waa ah, kay ba kii Tëngéej boo fa duggee mooy dëkk ki nga xam ni mooy Penda Ndiaye Penda Evans maa ngi koy kontaane moom it bu baax a baax a baax